Alassane Hann maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay madame. Alassane Hann nga nekk expert aéronautique euh, liggéey euh, ci armée sénégalaise euh, procès bu avion Sénégal Air amal tàmbale nañ ko ci jeudi 12 janvier bile ci tribunal bu Dakar juróom-ñaari at wala juróom-ñetti at gannaaw accident bi bi mu amee ba juróom-ñaari nit ñàkkoon ci seen bakkan kon ñu nekkaat ci xoluk drame bi nga xam ne mi ngi amoon ci septembre 2015 yow na nga alerté woon ci état wu avion boobu nga xam xamante ni moo daanu euh, ba ay nit ñàkk ci seen bakkan euh, lu ni mel tax nga am ay jafe-jafe euh, ci sa wàllum liggéey est-ce que mën nga ñëwaat ak ñun ci procès bi ni mu daal di dérouler ci jeudi bile. waaw madame laata ma wax ci procès bi sax ni ñu ko waxee man militaire laa woon doon liggéey ci aviation militaire donc dañ ma jël Euh, parce que aviation civile moo posé woon ay conditions compagnie bi pour que mu mu mu respecter ay règles de conformité maanaam mu am ay techniciens yoo xam ne dañu euh, am une certaine qualification moo tax ñu jël si ma biñ may jël si aussi dañ ma débauché jëlee ma armée dégg nga yóbbu ma foofu. Euh, ma nekk fa bi ma fa nekkee nag gis njombe gi nga xam ne moo war a am parce que ñun si suñu liggéey loolu la dañuy liggéey tout en euh, surveillant quand même, euh, disons, le, les mesures de sécurité et de sûreté d'exploitation avions yi nga xam ne moom la ñu yore bi ma gisee loolu euh, nga xam ne comme même compagnie bi 1995 lu lu mel ni moo fa amoon benn avion bu daanu ngapparu nga xam ne sama ñaari collègue armée ñoo ci deewoon dégg nga loolu ma wax may wax ak ñoom di leen artu ñu bañ ma déglu bi ma demee ba gis ne lii musiba la te puis dafa am genre lobby bu ne ci biir man maa jël samay responsabilité parce que mënu ma toog di am cas de conscience di gis ay di jël roplaan boo xam ne à tout moment mën nañu seen bakkan mën na cee des ci laa def rapport circonstancié adressé ko directeur euh, général euh, ANACIM maanaam mooy autorité locale aviation ma def ci ampliation autorité aéroport bi yëpp def ampliation autorité étatique yëpp ba ci président de la république bi ma leen ko waxee aussi yemuma fa dem naa ba assemblée nationale jox naa ko ay député ku ci mel ni Imam Mbaye Niang ku ci mel ni Cheikh Oumar Sy ñoom ñëpp ma jox leen euh, expliquer leen ku ci nekk bay ci sa waar pour que lu mel ni bañ parce que n'importe quel citoyen ngay sénégalais di étranger mënoon ngaa ñëw di jël roplaan gi di dem di dellu si lii mënoon na la cee fekk donc loolu lu yomboon la nga xam ngay yor sa mu am problème nga defar ko nit ñi nekk ci jàmm dëggaluñ ma nag eh, bi ma defee rapport bi la même semaine lañ ma dàq dàq boo xam ne ko fenn di évoquer ay motifs économiques nit ki mën nga koo jëlee armée fekk ko muy liggéey nekk ci euh, disons carrière am nga jëlee ko fa indi ko débauché ko ba pare en moins de deux ans nga dàq ko léegi nag euh, biñ biñ ma dàqee ba pare dem naa tribunal tribunal tranché na nee na biñ ma dàq du yoon nañ ma fay samay droit boobu ba léegi maa ngi daw ci samay droit ñaari at lañ ci teg roppalaan gi daanu roppalaan gi ba muy daanu ma ngi fekk beneen roppalaan ca kaw mbëkkanteeg moom ba bu ñu daanu woon ñoom ñaar ci kaw Tambacounda googu ñu ñu toll woon ay nit dañ fay dee kenn xamul musiba boobu fu muy mujj mujj eh, gi roppalaan bi moo dem réer ci biir géej gi wër nañ ko nag ba sonn dégg nga eh, léegi nag ba ñu defee enquête technique enquête judiciaire dossier bi yóbbu nañ ko tribunal tribunal mi ngi ñëwoo depuis plus de ñeenti at depuis plus de quatre ans catastrophe bi am na depuis plus de huit ans depuis bientôt huit ans depuis plus de depuis bientôt quatre ans ñu ngi tribunal tribunal nekk ci procédure bi procédure bi euh, euh, ay constitution partie civile ngi ci démb par exemple bi ñu demee euh, benn ci avocat membre d'équipage yi dafa ñëw constitué wu beneen avocat nga xam ne moo yor moo nekk euh, avocat wu benn veuve moo ñëw ne day installer compagnie d'assurance dans la cause may wax rek ne euh, man ci sama bopp lii gisoon naa muy ñëw alerte woon naa joxe woon naa firnde yu leer ne lii buñ ci jógu musiba day am te man bi ma koy wax ñi nga xam ne ñoom laa alerte woon muy autorité sénégalaise yi ñoom laa daan dugal ci roppalaan di bañ seen bakkan def ci bañ na licencié ma wax ak ñoom wax leen ne licencié nañ ma tere dañ ma liggéey ñi ngi teg seen tànk ci sama carrière te samay këyit nangootuñ ma liggéey mënatuma dundal samay sama njaboot simplement parce que xeex naa pour que njombe bañ am benn sénégalais du am jafe-jafe léegi nag euh, musiba bi am na woo nañ leen devant le tribunal ñi nga xam ne ñoom ñoo yoroon des na aviation civile sénégalaise ñu alerté woon leen ñu war a jël seen responsabilité lii fekk leen ci ñu war a ñëw leeral devant le tribunal ñooñu amuñu benn droit tey jii nee nañu may nañ leen liberté provisoire koo waxal ci ci ci avocat yu dossier bi nga yor procès verbal bi li mu lay njëkk a laaj mooy pourquoi ces gens là sont en liberté léegi nag ñoom bu procès amee nañu ñëw taxaw procès bi aussi nañ ko tenir ñoom dañoo demander nañu def euh, comment s'appelle encore euh, benn audience spéciale ah audience publique lañ nekk actuellement nee nañ audience spéciale lañ bëgg c'est vrai am nañ ci droit mais nañu tenir audience audience spéciale bi ñu dem dans les débats de fond ku nekk wax li nga def ñu jël dossier bi tëral ko parce que victime yële ak seeni famille dañ leen a war rendre justice rendre justice ku mel ni man nga xam ne lii tax na ba ma ñàkk sama liggéey samay njaboot di torox ci loo xam ne man euh, sama àddina yëpp maa ngi ko defoon ci aviation liggéey ci armée armée nationale pendant plus de vingt cinq ans dem fële pour pour aar askan wi sauver askan wi ñu jëkkati euh, lu mel ni teg ko sama kaw na na na tribunal def liggéeyam ñii nañ leen woo amuñu benn droit ñu ñëw taxaw ñun veuve yi taxaw euh, orphelin yi taxaw ñi nga xam ne ñoom lañu ñu désigné comme ay euh, inculpé pour homicide ñoom ñu bañ taxaw dégg léegi daal loolu mooy sama wax ci wax ji. Mm-hmm. am nga euh, yaakaar Alassane ci ci procès bi que li nga ci bëgg di nga ko am say droit yoon tamit daal di tranché. en euh, votre faveur. madame la justice est rendue au nom du peuple. fii nga xam ne lii nga xam ne moo xew nii justice dina dina ko dina ko juger. Mhm. ci nii wala ci nële man wax naa leen j'en fais un combat personnel parce que euh, je dis souvent euh, tout le temps maa ngi koy wax man maay huitième victime y a sept victimes sous l'eau mhm. man maay huitième victime bi dinañu leen juger ci nii wala ñu juger leen ci nële mooy dund comme may de ma dee parce que li ma mënul concevoir tey jii mooy lu toll nii am ci Sénégal ay roppalaan mbëkkante ba benn bi réer ci géej gi dégg nga mu am envergure internationale keroog ba mu amee fépp ba Australie da ngay gis nit ñi di def seeni seeni commentaire milieu aviation bi yëg yëngu dégg nga ñëpp li xaar procès bi mu mu mu mu mu mu xew mu mu déroulé ba nit ñi am seeni résultat boobu ba léegi nit ñi xamuñu nu mu nu mu demee ça fait bientôt huit ans que ça dure dégg nga donc euh, euh presse bi da ngeen a am devoiru taxaw di couvrir affaire pour informer opinion parce que information boobu mooy waral képp koo xam ne tey jii bëggoon ngaa def njombe xam ne lii bu ma ko defee lii moo ma ci fekk ba ñu bañee di ko def boobu ba léegi lu ngeen ci gis avant euh, catastrophe bi lu fi amoon Joola ñu bàyyi mu dem catastrophe bi am kenn waxu ci ñu ngi koy nëpp nëppal presse bi di ci wax kenn du def couverture kenn du ci euh, addu euh, fu ñu fu ñu mujjee ci am na fi ah ñëpp di jooy teguñu ci dara misira hélicoptère bi wadd ba ñu ni jooy dégg nga barki démboo Njaay hécatombe fële si kilo lu ko lu ko waral parce que simplement bu catastrophe amee nit ñi duñu def li ci war ñi de ñu def njombe duñu leen juger ñi war a sanctionné duñu leen sanctionné dañu nëpp nëppal sax pour kenn du dossier bi ana famille yi nga xam ne ñoom lay seen ana tubaab bi nga xam ne moom moo dee ci roppalaan gi ana famille yam tey jii procès bii ñuy tenir à Dakar bu amee c'est parce que bi ñu xeex ku mel ni man bi may xeex j'ai demandé à ce que vraiment après les enquêtes euh, techniques et judiciaires que ce dossier soit rouvert bi may yëngu-yëngu bu métti bi ci la euh, euh, le parquet de Paris envoyé fi commission rogatoire ñu ñëw instruit parquet Dakar pour mu ubbi information judiciaire ci la ñu ubbi information judi judiciaire prononcé ay inculpation ñooñu inculpé woon du ñu fi taxaw rek de boo demee ci compagnie aérienne bi lu toll juróomi nit wala lu ko ëpp. ñoom ñëpp dañ leen boole woon ci inculpation yi tey anañu ñoom diggante le 5 septembre 2015 ak léegi ñoom ñëpp ku ci nekk génn nga àddina ah léegi nag loo loolu euh, man sama bopp dama leen di wax ne sama xeex la te xeexu bépp Sénégalais la boo xam ne yaa ngi nekk nit ku respecté ak ak yelleefu doomu aadama waaw lii dafa ñaaw ci suñu réew. Alassane Anne est-ce que combat bi parce que nee nga euh, sa combat personnel la mais est que am nga ku la si jàppale voilà soutenir la si utal la ay avocat ainsi de suite. waaw man de euh, yaakaar naa ne citoyen la de surcroît euh, militaire la dogu woon pour taxaw aar askan gàddu fital tey la sama bakkan pour que kenn ci sénégalais yi du am euh, gàllankoor tey defe naa bu ma bu ma amee gàllankoor sénégalais yëpp war nañoo wëlbatiku dégg nga jàppale ma jàppale askan wi yëpp parce que lii du man askan wi yëpp la ñu xeex parce que lii buñ ko saafara woon bañ ko waree saafara billaahi lii am ci misira du am parce que amul pilote amul chauffeur amul euh, navigateur euh, maritime buy am surtout jàkkaarloog sa appareil naan yaa ngi def naka su dul noonu mais li yëpp bu amee c'est parce que bu dara bu dara xewee nit ñi dañu nëpp nëppal léegi nag man ay ab nee euh, sax à partie de maintenant maa ngi dox ci sensu constitué wu partie civile parce que man ci sama bopp am naa ci njombe boo xam ne Euh, jéggi na dayo dégg nga fukki at ñu ma ko téye mënatuma liggéey nangootuñ ma liggéey téye sama euh, carrière yàqal ma sama carrière toroxal sama njaboot ñaata ñaata la perte waxatuma la loolu li nga xam ne tribunal décidé nañ ko pour ñu fay ma ko sax ba léegi ñu téye ko fukki at naka lañ naa laa def ba dund dañ ko xam ah donc lii sama combat te dinaa gisee ak samay avocat dinaa waxtaan ak ñoom pour que ñoom ci seen bopp li ci war ñu def ko sans compter nag ñi nga xam ne ñoom ñoo loru ñoom la seen mbokk loru ci ci ci ci ci bataay ci ah, ci accident bi nañu jóg taxaw jàkkaarloo tribunal bi pour que ñu seeni mbokk ñu delloo leen seen àq ak seen i yelleef loolu mooy dëgg ay xar wala ay mala deewuñu ci roppalaan gi ay nit a ci dee ay borom kër ay ay seen seen i doom a ngi dund seen i seen i soxnaa ngi dund seen i waajur a ngi dund li kenn xamul lan la ci loo xam ne warul woon mën a am ci àddina dégg nga loo xam ne ñun gisoon nañ ko ñun mooy suñu liggéey suñu carrière yëpp moom la ñu liggéey gis ko muy ñëw ñu ne leen moytu leen lii ñu ne duñ ko moytu def lu leen neex tey lii fekk leen ci nañu nañu rendre compte Euh, laaj bu mujj euh, peut-être question d'actualité di drame bu Sikilo euh, gis nga am na ñeent fukki nit ak benn ñàkk seen bakkan état bi jël ay matukaay ban jàngat nga ci am rek juste une deux minutes Alassane waaw jàngat bi ma ci am mooy li ma jot a wax rek dégg nga bu dara amee Sénégal amuñu culture euh, taxaw def li ci war euh, accident routier yi am Sénégal euh, les les les responsabilités sont partagées yoon yi jaaruñu teguñu ci yoon mënuloo tegu ci télé Sénégal ba gis signalisation verticale wala horizontale booy def code de la ci lan lañ lay évaluer du ci loolu. ay signalisation da nga koy gis ci tali bi doo ko gis fi nga war a dawee cinquante kilomètres à l'heure wala kii da ngay gis panneau dangay gis dara waxatuma la étroitesse des routes indiscipline usagers yi route ni ñu ko définiree mooy espace euh, aménagé entretenu ouvert à la circulation loolu yëpp loo ci natt tey teguwul ci yoon loolu ku ko gérer état moo ko géré la plus grande part de responsabilité nag incombe à l'état du Sénégal ñoom nañu delloo ci seen xel li ci war ñu def ko li nga xam ne ñu ngi fi di bàyyi muy dem teguñu ko fenn nañuy sanctionné na ñuy nañuy sanctionné parc automobile u Sénégal nañ ko seetaat dégg nga effectif automobile et puis les gens doivent avoir la culture di utiliser ay moyens de transport en commun oto yi ni ñu dawee Sénégal jaarul yoon bu yoon yi xatee nañu def culture euh, nu mu tuddati euh, circulation alternée am na ci yoon yoo xam ne à à des heures de pointe warul mën a am deux sens nañ ko def ay sens unique pour que nit ñi mën a dem di ñëw en toute sécurité dégg nga léegi daal lool euh, guddi gi gis ngeen tëli yi fi accident bi amee guddi xaaju guddi amul sax éclairage waaw loolu yëpp kan ça incombe à qui ça incombe à l' état du Sénégal si am nañ ci part de responsabilité mais na état bi seetaat boppam. voilà Alassane Hann Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal. jërëjëf jërëjëf madame. may fàttali expert aéronautique nga liggéey nga tamit ci biir armée sénégalaise. jërëjëf.